jërëjëf Babacar Anta ci euh, vidéo bi ba tey rek mu di seen émission hashtag news di ci dalal monsieur Mamadou Ndiaye di responsable bu recherche ak documentation ci coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique au Sénégal COSYDEP ci seen émission hashtag news euh, sëñ bi Ndiaye sànq ñu ngi doon wax ci wàllu quantum horaire bi d'abord lan mooy quantum horaire pour euh, sénégalais yu ci bari xam nañ ko sax mais mu gën a leer ci seen bopp. quantum horaire moo di li nga xamante ne gouvernement bi ministère de l'éducation natt na ko ci at at bi bu génnee feet yi ak férié yi li ko desee ci waxtu lu ko dese ci waxtu lu yanu maanaa loo xam ni mën nañ ni bu ko xale yi jàngee dinañ am xarañte bi ñuy xaar ci ñoom ci année bi maa xanaa bi ñuy def bu ñu war a mu war a ñu war a ci mën a jóge jàll ca niveau bu ca topp. Ah, daf ngeen liggéey ndax fi mu ne nii grève bi dafa takkar naa si am na lu ci génn ci ci ci ci ci ay waxtu de naka la tëddee mbir mi. atum ren euh, scolaire bi deux mille vingt et un mille vingt deux nguuru Sénégal dafa nattoon ne euh, at bi lu ñu war a mën a tàggat xale yi pour ñu am xarañte ba ñuy xaar si ñoom mooy mille deux cent soixante dix heures maanaam junni ak ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk. ci ay waxtu ci ay waxtu yu ñu war a jàng. gis nañu fi mu toll nii bi neuf huitième plan d' action wu G7 rombe. te boolewoo ci G20. ci G20 huitième plan d' bi mu rombee gis nañu ñàkk nañ deux cent cinquante heures maanaam ñaar téeméer ak juróom fukki waxtu yoo xam ne ñàkk nañ ko ci ci ci huit plan d' action yi neuvième bi duggagul. donc ñu perdre si deux cent cinquante sur mille deux cent soixante dix donc on est presque à mille te ñuy wax ne neuf cent heures la ñu war a jàng chaque année pour ñu am li ñu bëgg ci xale yi mais li ñu pour ñu am li ñu bëgg ci xale yi boo xoolee ci li ñu jógee ñu jógee ci Covid. Mm-hmm. ay xale toog quatre mois jànguñu. pour ñun bu ñu doon xool sax ñun neuf cent heures yooyu dañ ko war a yokkal suñu bopp. Mm-hmm. tuuti na voilà tuuti na si ñun. tuuti na si ñun ay experts gis nañ ni tamit ne euh, xale buy jàng ci làkk bi nga xamante ne nekkul làkk bi mu nampee. Mm-hmm. kooku moo war a ëppale ay heures yu muy jàng que ki nga xamante ne ci làkk bi mu nàppee bi mu nàmpee <laughs> ci lay lay lay lay jàngee maanaam français bu nekk France li mu soxla ci heure olof bi ne Sénégal li jàng ci français moo ko gën a soxla ay waxtu donc 900 yooyu pour ñun bu ñu bëggoon am sax les ambitions de qualité yi nga xam ne moom la ñuy xaar. Mhm. dañ ko war a yokk dañu war a dem vers 1000 di jàng 1200 heures donc aujourd'hui on est à moins de 1000 donc pour ñun c'est vraiment critique nguur gi enseignants yi dañu war a baral seen i jéego rafetlu nañ seen daje mais ñu xam ne kat euh, fi ñu toll nii nekkatul di guddal. Mm-hmm. maanaam négociation yi nga xam ni day day direeku li ñuy di def li ñuy wooye dilatoire. syndicat yi di ko kaas <laughs> souvent. Mm-hmm. pour ñun nguur gi dafa war a jóge ci neuvième plan d' action bi ne. régler problème ni ñuy waxee na fi yam ñu régler ko ñu mën a jàll ci yeneen priorité yoo nga xamante mooy priorité enseignants yu ñàkk priorité qualité priorité formation priorité effectif ainsi de suite. kon bu ma la déggee monsieur Ndiaye mooy que ni fi mu ne nii nii nii ëllëg luñ ci tegaat rek mënees nañu daal furaas. lu ñu ci tegaat furaas mën nañ ko wax bu baax a baax a baax moo tax dañoo jóg ñu alerter euh, nekkatul yoon parce que Sénégal waajalul boppam ci jàng ci nawet. Mhm. bu ñu waxante dëgg. boo xoolee abri provisoire yi am ci dëkk bi boo xool problème transport yi am a Dakar bu tawee nit ñi duñu bouger Sénégal waajalul boppam tàggatul boppam pour mën a jàngale nawet moo tax buñ ci jógee généralement li ñuy def mooy rallonger année bi déplacer examen yi gis nañu atum ren loolu du solution boo jógee ci Covid pour man danga war a dabaatal dabaatal nag àndul ak ngay toog di seetaan ay waxtu di di romb dugaat ci vacances yi di jàng waajaluñ ko suñu bopp day wàññi performance élèves yi parce que année bi bu guddee élèves dañuy sonn ko lu ñu ci tegaat lu ne dafay dafay dafay daanu ci France euh, rax ci doole yeneen syndicat génn nañ ñoom tamit mm-hmm. bëgg cee yokk ay plan d'action yoo xam ne. G20 bii lay jaar nii bii lay jaar nii. pour ñun loolu ay waxtu yu ñàkk la yu ci. rax ci dolli et puis bu ñu fàtte. enseignants yi dañoon grève. Mhm. ñetti waxtu ñetti fan ci benn ayubés. Mhm. ñaari fan yi sa des élèves yi grève ko. kon natt bii ñu natt ni à travers plan d'action yi peut-être li ñu ñàkk sax moo ëpp loolu. est-ce que vous voyez. bu baax élèves yi dañoon wër di génne seen moromu élèves yi. donc semaine dañu koy toog cinq jours. du ñu merci kon peut-être même c'est plus critique mais il fallait le sortir pour alerter sur sur une base scientifique ñu mhm. demee suñu ko si def def moom la ko si def def. am na solo lool donc def naa parents dégg nañ ko enseignants dégg nañ ko état bi naam sax jox ngeen leen rapport bi mais defe naa ñu xeeñ neexul di ñaan yàlla rek euh, grève bi saafara am ci di la jaajëfal yow mi nga xamante ni yaay ndawal ko si def Mamadou Ndiaye di responsable bu recherche ak documentation coalition des organisations à synergie pour la défense de l'éducation publique du Sénégal àndal Mourou Fall doon ko dégtal incha allah beneen yoon jàmm ak jàmm